saa xol bi jeex na te sa xel ma ngi waxtu te lepp am njàqareel tag tog wer wi raxas sunu lepp saa xol bi jeex na te sa xel ma ngi waxtu te lepp am njàqareel tag tog wer wi raxas sunu lepp bakkaar yi na te xaw tuut rek ñu nur ca balap xewali tas na ba motax kenn daawu ci lepp weru ngeenel wa di ma ndeg yara lepp ku yewu koy yoni wer wi weru làq la lépp ci ramadan weru mbeng ma ngay laxas sunu lépp suñ sun suñ he he nga la yow mi ci lepp man jili joy na ci tàggoog wer wi ngir sama lepp day ramadan alxuraan maa ci am tawféexi baale ci lépp tawféexi jokk ci bokk ak dimbalante ci lépp tawféexi yokk sama jaamoog di moytu ci lépp tawféexi sàmm di sàmmoonteeka muslu ci lépp lu yàqalub jaam ci jaamoom weer wi dindi ko lépp tawféexi sellal di settantal di gaawtu ci lépp luy làqaloo mbooti weer wi waaja jox na ko lépp tawféexi jàng ci xuraanoo ko gaawtu ci lépp lu yokk nit yiw ci koor gi jiliful na ko lépp yàlla nañ dajeeg mbooti mbooleem ñetti fukk yi yépp te yàgg koo fekke amiin yàlla mën na ko lépp yàlla nañ dajeeg mbooti mboolem ñetti fukk yi yépp te yàgg koo fekke amin yàlla mën na ko lépp yàlla na nu buur fay dolle dollee sàmm réew mi te lépp lu njàq rek ay na def far mbég soppi ko lépp yàlla na nu buur fay dolle sàmm réew mi te lépp lu njàq rek ay na def far mbég soppi ko lépp amin kon jili xiif buur yàlla dégg na lépp Cheikh Abdou Khadir sa njaam si bal na baalu na ñëpp amin kon jili buur yàlla dégg na lépp Cheikh Abdou Khadir sa njaam si bal na baalu na ñëpp